defal ñaan ñi feebar wax nañ ko léegi euh, bokk na ci Khady Cissé Khady Camara bi nga xam ne moom la solal bu mii nii Ibra moo ko ñëw nag moom te laajuma ci dara dafa feebar sànq la ma yónnee message wax ne dafa feebar waaw euh, gi bu rek la xëj na du mel ni Ousmane wax na ko léegi moo tax limuñu parce ñun dañuy wax ne digalu kilifa jëfe mais bindoon nañu benn list boo xam ne bii yëpp lañ naroon jàng mais la mu ca wax moo ci am booy lim soo moytul da ngay fàtte waaw mais oustaz nga ñaanal ñëpp te li mu ci wax moo ci am man damay faral di wax ne am na ko ci def am na ku yéene def te mënul def ñooñu ñoo waaye bëgg naa tam ñaan gi nguuda jenn mi toog nii ñoo àndoon màkk la mu def màkk bëggul ko ko wax ñam bokkaloon néeg yépp moom moo leen doon jëndal lekk ñoom ñoo bokkal néeg ñoo ko boole dafa ñëw ma ne ko nguuda yow sama soppi nga dama lay yóbbu ci chambre d'hôtel boo xam ne ñaari nit kese ñoo fay nekk yow ak keneen mu ne ma waa daal di dem ca chambre ba nis tuut puisque mu ne ma waaw ma ne ko mu ne maa ne imaam daw naa foofu ba kenn nit rek fa nekk te man dama bëgg nit mu dem tànnal boppam nit boo xam ne ñeenti nit fa nekk mu toog foofu ci ñëw ñu doon ñu néew doole mu di leen di dimbali arafa enfant ku dem màkk xam na ne lekk léeg-léeg mu am fa problème mu naan léeg-léeg mu am fa problème xaalis bi mu ma joxoon ne ma jëndalal pèlerin yëpp añ dama ko xaaj delloo ko ko ne ko lii ëpp na wallaahi bi ma ko ne ëpp na delloo ko génn wàll gi mu génn bookar ñaan jabar mu ngi toogoon fii léegi Mati si kii Abi Sylla boo xar ñaar def ma ne danga ko ko delloo ma ne ko delloo naa ko waaye su ma sañoon du ma su ma teeloon xalaat du ko ko delloo mu ne ma lu tax ma ne ko daf koy joxewaat wax boobu ma wax nekk ne néeg néeg ba den daf man foofa la dugg séddale ko bee mu ngi xaalis bu bari ma ne la ñi ma àndaloon ak ñeneen waxuma man sama groupe mais groupe bi ma doon encadré yëpp moom moo leen jox añ mina moo leen jox añ añ euh, arafa vraiment te loolu man la ko dimbalee parce que man maa ko waroon a def suñu amee problème waaye moom mu ñëw ne ma man maa koy def mu def ko macha allah waaw fa tabarakallahu asrul xaaliqin yal na yàlla fay la yow képp ku def ci gàmmu gi alal lu mu néew néew lu mu bari bari bari bari yàlla na ko yàlla fay ay ay ay ful ay ful yu bare bari bari bari ay ful yu bari mënuma tudd ñëpp parce que Ousmane euh, waxoon na ma ko daaw te ren it je me suis rendu ne même bu ñu liiroon liste bi dina am ñoo xam ne fàtte nañu leen dinay faral di tudd Sidi Sam bu ne dafa nekk sama xarit moo tax mais directeur national la moom moo yore CNRE centre national de ressources édu euh, éducationnelles moom moo ko yore te bu doon beneen gàmmu la dem dañ koy andi ci waaw ci ci kii donneur bi lañ koy andi waaye moom OFM moo tax mu taxaw ne te moom itam lu ne def na ko ci gàmmu waaw rajo yi chaque année moom moo koy jël en charge fay ko. noonu noonu lañ fi baree macha allah ñoo xam ne ñi jël nañ seen alal. ñii seen ñaar dërëm ñii seen ñetti dërëm ñii seen ñaari junni ñii seen fanweeri junni allah ba gàmmu gi mel nii mu mel nii waaw ah, gàmmu gi mel nii mu mel nii fa tabarakallahu yal na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla fay képp koo xam ne joxe woo bul am kersa mukk mukk nag laa wax ci ne joxe wu mukk parce que li ma wóor man mooy soo amoon di nga ko joxe. te nag yàlla ñooñu la yamale doon naa leen fàttali toujours benn maire bu doon jaay fii caaf bi mu ñëwee fekk ma nga yenu paan ak ak fourneau ak euh, marmite ak leket moom daal ba yan bi kawe maire bi ni ma da ngeen di gàmmu ma ne ko waaw mu kenkengi kenkengi ba teggi yan wi teg ci suuf jàpp sërwa di tekki di tekki di tekki di tekki di tekki di tekki ba man sax xawoon naa tàyyi mais bi yëkkati cent franc nëbal ma ko ne ma ko barkeeloo ci gàmm gi waaw cent franc boobu ni mu rëyee ci man dafa mel ni comme milliard la ma weer bi jox parce que xam naa ne effort ba mu def pour am loola lew na te sonn na ca mais am na yéen joxe waaye loola la am ku ko xooxee xeebar rek def musiba moo tax gàmmu gi joxe baax na parce que mooy tax mu am waaye ku joxewul ku ne bul am benn yoon kersa bu mu doon ci kanamu nit ñi bu mu doon ci kanamu yàlla subhanahu wa taala nit li mu mën rek lay def laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha loolu rek moo am solo waaw te gis nga thème bi ma doon waxtaanee nii dafa dafa li ma ci denc dafa bari mais yitte doomu aadama rek moo am solo yitte maanaam yow da war a yar sa bopp ci nga xam ne nit yu yitte ngay doon Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu Ousseyn Ndaw mii moo ñu ko jàngaloon booba laa ko tareewoon ba léegi fàttewuma ko mu ne himmatul insaani qaahiratun ala jamiil akwaani walaw taallaqat bi ma wara al arshi la naalatu doomu aadama yitte pour wax la rek ne nit dafa war a am yitte. bis bu nekk muy entrepreneur entreprendre dara gis nga xale xale liir bu demee ba am deux ans trois ans mënoo ko gis mu toog yow yaay defee ne day foofu fekk moom lu muy def découverte la ak jàng parce que moom ma nga teel la ko yàlla sant la kulla min huwa fii sha'ni bis bu nekk mu ngi ci dara dara boobu moo koy formé moom xale boobu ñun mag ñi loolu la ñu war a am Cheikh Ahmed Tijani mu ne sa yitte soo ko ajoon lu nekk ci ginnaaw arrache balaa ngaa dee maanaam liggéey nga am objectif ba pare liggéey fekki objectif boobu tey loolu kenn génnew ci liggéey ngeen di def yal yàlla taxawu leen ñun ñëpp yal yàlla nangul ñu suñu gaaw jëw laa la nag Oustaz Ndaw ndax Lamine Sey seen jàkk ba nekk 19 angle 4 daf fi ñëw ne ma jàkk jooju dañu bëgg ñu nga samp fa burda parce que da du ñu burda ma ne ko ah Oustaz Lo de moo sampoon fii Goudda moo bàyyi mbay te boobu ñetti nit lañu woon man dinaa sonn waaye samedi suñu Goudda ba noppi ñu dem seen jàpp foofu ñu bëgg waaye ba ñu demee ma fekk fa sama waa kër parce que maa foo wekk njabootu si leen waa kër may mbaam may si la ñoom laa fa fekk ma encadré leen ma imaam ñun lii rek lañ doon wut fit te jox ma ñu fit parce que ñun mun nañ burda ba pare ma ne ko souvent suis rendu compte parce que seen burda bi moo gën a xumb sax suñu bos loolu laa leen ko waxee ñoom burda nañu ba démb la ñu tëj seen burda woowaat ma ne dañu bëgg ñëw gannaaw yaa ko ubbi yoon nga ñëwaat assi si ñu tëj burda ma ne leen wax naa leen ko foofu nag ne leen su ko defee dama koy def parce que oustaz dong moo tax ma am fit boobu kon yàlla yàlla fay liw lu lu lu am solo la loo xam ne lii ci sa ci sa ci sa jeexital la amee muy dix-neuf ànd ak yàlla yal na yàlla barkeel ko macha allah war nañu def leneen feet sax le 17 parce que oustaz bi fa nekk soog a tàmbali rek kon li ma leen waroon gërëm maa ngi koy def ñaan maa ngi koy def ñaan ñaanal leen yàlla taxaw leen oustaz ndaw ndaw ñu ngi lay ñaanal yow parce que moom foog naa dinaa ko wax ba sama làmmiñ booy su ma mënee wax arab bu set ci moom la boobu ñuy formé. wax naa la bu ñoom Ndeye Cissé gisaan mu yëkkati yar bi xaw ko yëgal ci man rek Ndeye Cissé day daw ne eh gaaw leen tey ñu dee de ñu ne ko la mu ne dóor na xarit ba de bu dóoree xarit ba du ñu fi bàyyi gaaw leen ñun ñëpp dinañu rey tey te noonu lay demee de bu ma ñamalee benn day romb ci kii rek ne ah bala yow sën la so rek ah romb na waaye bu rombee ku mu njëkk a jot fanweeri yar la lay doon macha allah loolu yëpp bëggoon ñu baax. xam naa la mu bëggoon la mu bëggoon ci sax xam naa ne amaguñu ko waaye continuer ñaani rek incha allahu taala yàlla yàlla defal la tawfiq sa njaboot yëpp lay andi jabar ñëpp lay boole yàlla yàlla defal la tawfiq daaw ci waxtu wii fii la jógee woon dem ndax magam bu feebar papay Babacar Ndaate ma ne sama soppe alors mooy moom borom waaw sama xarit sama soppe macha allah. ca la gaañoo ca bisu gàmm ga waaw te fii la nekk ñu koy woo mu mu daal di def li muy def fii soog a dem allah kon loolu xam ne yéene la waaye nag da koo moom nag daa moom gàmm gi yàlla yàlla defal la tawfeex defal ko defal ko mboolem jullit eh, xaaral ma yow fii waaw xamoon naa ko Ousmane léegi mu xaaral ma yem fii xam naa ne léegi mu wax bu ko mën a muñ man imaam ñaanal rek ñu naan dafa am ne kii. Alaaji maa ngi lay nuyu Ibrahima Faye maa ngi lay nuyu sunu goro bu baax a baax baax a baax maa ngi lay nuyu bu baax a baax Adama Sow maa ngi lay nuyu bu baax yow sa sa sant bi war na ci dara moom. maa ngi nii kon ñi ma nii ma ñi ma tudd tudd ngeen jéggal ñu ne kenn nekk jàng faatiha fa nga toog ak salaatul faatiha nga yéene ko sa morom kon kenn nga am nombre kenn ku nekk na nga jàng faatiha fi nga toog asalaatu faatiha ku ne yéene ko sa morom ñu balante yëpp jox ko jox ko hadiya Seydina Muhammad bàyyi laay nag neex laa ko wax dama ne ko bàyyi laay ku nangu nangu loo moomul mag ñee daan wax ku nangu rek di am loo moomul parce que dañ ba jox lii fi jàmbur dafa naa mbiri naa bëri na mbiri na jàkka trop mais nangoom jox na ko tey jàkka ji mu jël bul bi yëpp di ko def ci jàkka ji loolu mooy ku nangu nangu loo moomul yàlla jëm kanam li mu daj ci école bii li ci daj ci coono ñun mosu ko daj maa Ousmane defe naa xam nga ci dara ku sonn la woon koo xam ne kii ci parce que man ku bëgg ku ma xam ne kii bu ma la bu ma la dimbalee nga am lu baax du ma la yërëm daan bind bind Sénégal ñi ci dàq bind ci la bokk bu ñu defoon concours daan na toog di bind bañ oo ko añ mu dem añ ñëw di bind bañ oo ko reer danga ko yërëm sax mais fas ba mu bëggoon si moom am na bu ko ëpp loolu laa taxoon sonn na la nag teel ko am yàlla dafa am bés ay waa Pakistan defe naa ñoom la ñëw fii def waxtaan ci jàkka yi ba pare mu di leen gunge nga daje fii si bopp koñ bi mu ne mu ne leen kii mooy sama sëriñ mooy muallim yi ne ko ma ma ne leen ma wax naar leen maa ñaan ngeen ñaanal ma dadal Firawna yàlla musal ma ci Firawna benn problème dong adduna ba mu dem safara mooy xoolee bu xoolee Moussa maa la yar xoolee Moussa maa la yar moo alal Firawna fu Moussa waxee man alam nu rabbika ci ñaw ba xanaa yaruma ma ne ko ñaanal leen ma mu mu mucc ci loolu parce que su ma jàpp su ma def su ma bëggee baatu ci ko yar rek alko alko du ma ko nangu mukk yàlla may na ko yàlla may na ko lu bari la ko yàlla am na saahir am na baatin lu jafe ci àdduna am na ko li mag ñi uut yëpp am na ko am na lu mu toogee fii kaaloo bu ko waaye ñun sax taamuñu kaala waxtu ba far moom mais bu ko neexul wallaay mu kaalaw ni teel ko parasol li mag yëpp xam yëpp xam na ko xam na ba xam siru boo xam ne ko xam ku la gis bëri yàlla dina demal jànn fekk juróom-ñaari nit yàlla xamal na ko turu yàlla boo xam ne ko ko xam fekk sept gis naa bàyyi laay loo bu baax mi gis na gis na bàyyi laay asmaan gis na ba set bi jeex te Cheikh Omar Fouti moo ko garanti bàyyi laay xam na ko yàlla xamal na ko kon nag seen yar moo yegg ci ñu nekkoon ñu nangoo nekk ndongo ba abadan ak seen yegg comme imaamul Junayd ba ne ko Junayd ku yegg si yàlla naka lay mel mu ne day nangoo nekk ndongo da di da jëndi laal ak poobar de master parce que nag ne ñaan ngeen ne ko ñëpp def bu la laa bu daal ci ne xam-xam bii mu leen wax am na beneen xam-xam bu ko gën a xool yàlla may na ko ko ndax sama papa dafa jeexoon ci moom laaj baabu ndaw dafa jeexoon ci bàyyi laay parce que moo ko bindal téere boo xam ne góor gi gëmi uroon ko yàlla ñu ko tagg Cheikh Matiyaan Sarif moo tudd Shamsu Zahirati bàyyi laay bind ko bind boo xam ne décoré ko ndey si bi jox koy tafam mu jël def te taf yoo xam ne ni mu rafetee ba ko sa mbàpp téere dafa daanu la mbax bàyyi laay kenn moo ko nettali ci mbooloo la ko diggoon yépp lu ci bëri gis nañ ko te góor googu yàlla mayoon na ko yàlla mayoon na ko lu mu wax yàlla def ko ci lu bari luñ ci liñ fekk suñu bët waaw yàlla xam na ko benn bés rek la Moussa la loo xam ne lu tumaranke il faut ma xam nga wax day am mandarga li wax kii technique dafa am ab dëkk bu am forage suñu côté bañ amee seen forage ñuy may ay nit tiw ay dëkk yi leen wër ñu ne ñun suñu dëkk kenn du leen may tiwo am ku ñëw ne sa papa de am na dëkk sàngam am nañ forage mais nee nañu duñ may kenn tiwo

nag mu ne defu leen ma waxuma leen da ngeen def ma yéen ma wax xaq daaru suñu diggante maa ngeen bañ ni mee bëgg a defar seen forage fekk ci wóoyee jaxasoo yàqu ñu ngi rek raga taxaw ci raa bi wut benn forage boo ko moo diggoon bàyyi leen di ko di nga tekki ci sa bi nga bokk boo ko diggoon lu bari kon lu mu sa wax ne dañ koy teg suñu bëri dafa ñëw Dakar dal ko Souleymane Diagne fekk Dakar boobu am dañu mar ndox tawul góor gi ñëw ma dew nag ah yow de sa ñëw bi am na am na am na am na am na tombé si mu ne waa garab yi laa romb ñu sëggam rek ma xeetale ko sama bar pour may leen ndox mu taw ca guddi ga bëri na kii moo tax ma wax ci moom tey a toog fi tudd alaaji baabu tax lim diggoon kii laa bëgg ngeen xam ne la ko diggoon wallaay am na ko te te am na lu dana ñëw kon Faati salaatu Faati man may dégg Vai lá, só من إليك يا رسول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد نبي الملك تشير به الفقر والفاقة وتشفي به الامرار والآلام وتنهل به الفقر وتنفر وتنفرد بالقرب وتقرى بالهوائج وتنال برحايب وفترضات ويتصالح مع بوشي الكريم وعلى علي صبي كل لهم منافق يعبد لكل مهل من لكن يا رب يا من تخرج أسبابكم فيقول ثم تزيد لهم الواحد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أين شرفوا أفول عن الجامي وجب وقفه سيدنا محمد يلين بيس ويؤم الفصول